suñuy rakk suñu doom donc Momo Camara ñëpp xam ko ci série Virginie moom moo ñu quitté tey quoi loolu moo tax ñu nekk fi tey pour jéem a soutenir famille bi mais famille bi yëpp ñu ngi retourné wu naan ñun tamit ñu ñuy jaale ndaxte xale bi lu mu ñu jege woon dafa bëri te ñëpp xame nañ ko ci yar ci tey ñëpp même témoignage ñu am ci moom quoi c'était un gos très bien mun nañ wax xale la mais kilifa la en temps ndax tey bu mu amoon ak yar bu mu amoon daf ñu ko doon won ci plateau bi te loolu daf ñu doon jàngal lu bari waaw tey nag yàlla jël na ko moom kenn du xëccoog yàlla xanaa ñu ñaanul ko rek euh, mu yeggali ndawam foofu. yow mi nga xam ne partagé nga ak moom série boobu ñu naan Virginie lan nga euh, mujjee dund ak moom wala lan nga dund moom ba tey ji mu marqué la. donc vraiment mooy li ñëpp di témoigner rek. booy bu amoon yar la parce que ñëpp xam nañ ne plateau yombul euh, heure yu ñuy déclarer ne moom nañuy commencer wala moom nañuy terminer des fois duñ ko mën a respecter parce que tout le temps dina am ay aléas yoo xam ne daf ñu bàyyi duñ ko respecter mais moom toujours mu ngi ci coin am rek toog di xaar nekkul koo xam ne danga nga ko daan dégg muy kaas wala muy coow xam nga tout le temps day toog ci coin am su jàngee texte am moom ba ñu ne action rek moom mu ñëw def liggéeyam après demaat yoonam quoi vraiment image bu rafet laa denc ci moom te moom leen bëgg a denc moom ci ci ci ci lépp quoi ci àdduna bu mu def fii nii le peu de temps qu'il a fait avec nous vraiment ñun peu de temps boobu jàngal nañu lu bëri waaw parce que koo xam ne dem na vingt quatre ans euh, bi may ñëwee ndeysaan ci famille bi ñu ngi ma doon wax ne c'était quelqu'un de très maladif mais que chaque fois daf leen doon jox espoir chaque fois daf leen doon jox espoir te tantam léegi mi ngi doon wax ne que dafa mel ni bi yoon daf ko sentiroon parce que mi doon wax ne treize heures trente lay xaar jox ma sama téléphone ma xool heure mu laaj ko lu tax mu ne ko dama bëgg xam heure kese. boobu fan mi ngi woon hôpital ak tantam léegi après tant bi nee na moom euh, bu treize heures trente passé ñëpp nekk di ko surveiller di ko xool ba quatorze heures quatorze heures dem ndeysaan. bu oh, mel ni kon maanaam sentiroon euh, demam waaye tamit daf leen joxoon heure wax leen ne jox leen ultimatum ne leen moment bu jotee daf meen damay dem. waaw on peut dire ça de cette manière là. parce que mu ngi mu ngi téye loxo tànt bi naan ko baal ma àq baal ma àq di ko répéter plusieurs fois donc comme si euh, mu ngi ko doon tàggu et qu'il savait que c'était son moment de partir parce que booy bu am yar la bu am lislaam bu dafa bien quoi vraiment man gisuma benn gàkk-gàkk ci xale boobu ko ci Momo Camara vraiment na ko yàlla jël yóbbu ko ci wetam mu toog ci wetu turandoom Mouhamed sallallahu alayhi wa xam nga vraiment ñun loolu la ñuy ñaan quoi. Mhm. tey ban message ngay jox famille parce que métti te nekk na loo xam ne euh, bu ñu dëgërul rek da di abattre. bon message bi bu ma mën a jox seen famille mooy que il faut garder les bons souvenirs de la personne avec qui on a xam nga su fekkoon nag xale bu terrible la woon ñu bëri dinañu am ay sikk-sikk lu wax ci moom mais koo xam ne dafa ñëw ci àdduna bi ñëw sedd guy vraiment du coow du wax lu bëri. du bagar du histoire xam nga nekk ci jàngam ak loo ak ak diineem loolu vraiment message bu rafet la famille bi ñoom ils peuvent être fiers d'avoir vécu avec Momo Camara mun nañ fier ci xale boobu fier ci ay études am ci lépp lu nga xam ne ci entourage am quoi vraiment loolu laa mën a wax famille bi ñu góor góorlu di ko ñaanal ñu bàyyi jooy bi xam na ne que yàlla moo fi indi woon yàlla récupéré na ko te moom tamit bàyyi na fi image bu rafet donc amul loo xam ne war nga ko rus am na loo xam ne waroo war nga ko nëbb wala ko que ce soit mais euh, ci vingt quatre ans yu mu dund ak ñoom c'est quelque chose boo xam ne yow mën nga ko wili pandé ñëpp pour que mu mën a servir ay frères ak dëkkandoom ñu mu nekkal. Euh, ban message ngay jox ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon série Virginie di ay moroomam ñu doon partager tout le temps moment bu nekk tey wéet nañu ndax seen xarit dem na. waaw wéet nañu trop. wéet nañu trop lii metti na am na ñu nekk extérieur ñoo xam ne ñu ngi leen di jaale tamit parce que bokk nañu ak Momo ay euh, moment réconfortant parce que finalement soo nekkee sur le plateau yow li ngay partage ak nit ki mooy ëpp sax yenn saa li ngay nekk ak famille bi dinañ toog tourner nekk ay huit heures ba ay vingt trois heures ba ay minuit jëm kaw pendant des jours et des jours donc après dafay créer benn genre symbiose entre yéen boo xam ne da ngeen di raw sax li ñuy wax amitié donc euh, benn fraternité boo xam ne day am entre yéen donc baa ngi massawu vraiment ñi nga xam ne bokkoon na plateau ak ñoom et en même temps c'est un message aussi pour dire aux gens de rester humble de rester simple xam adduna euh, àdduna xamoo yàlla kan la lay jël amul dara loo xam ne di nga ko yóbbaale muy alal lu àdduna doo ko yóbbaale donc euh, lii nii ñu ñëw fii ci koñ bi ñëw ci Fass ci benn famille bu modeste mais nga am Euh, nit yu bëri ñëw déplacé wu journalistes yi ñëw déplacé wu loolu am na sax ay kilifa yoo xam ne amuñu ko donc euh, lii message la en même temps pour war na ñun dañu war a delluwaat ci yàlla di suufeel suñu bopp xam nga pour euh, pour pour pour pour wan nit yi que àdduna nit ak nit la nit ak nit la nit ak nit la quoi de après lu si des yëpp yàlla mooy maye mais d'abord nit ak nit waaw li ngeen di seqee ñaar ak la li ngeen di li ngeen di mayante li ngeen di waxtaan li ngeen di loolu laa mën wax quoi vraiment man je suis ému par rapport à ça merci beaucoup merci merci merci. nañ la. ñu ngi lay fay bu baax ça va. di la ma saw bu baax ci ah, tiis ak naqar bi nga xam ne moo dal seeni kaw yéen ñi nga xam ne yéen a joué série boobu di Virginie. ñu ngi koy delloo bu baax bu baax bu baax. tey lan nga yëg biñ leen woowee annoncé leen tiis bi. metti na trop suñu xarit la woon man bi ma koy dégg yaa même pas longtemps ñoo ne suñu kër instant bii nii mooy loolu. Mm-hmm. lan ngeen naan dund ak Momo loo xam ne affaire yu bëri ko il était comment. il était trop humble. il était un euh, mm. je ne vais tout expliquer. Mm. Euh, mm-hmm. nga xam ne moom moo ko yóbbu ndax da ngeen ko nañ ko mais genre moom affaire bi genre kii wu ko woon ko même su feebaroon il était maladif alors. il était maladif voilà. Massa ñu ngi leen di masoo bu baax a baax. baax mais tey ban anecdote nga ñu mën a wax ci moom. yaa voilà. Ah. comme. ce que comme comme day ñëw suñu kër damay dem këram. dañuy def ay affaire dañuy génn ensemble y a trop de trucs qu'on ensemble. te ban message ngay jox. su may joxe message mooy na ko nit ñi ñaanal parce que c'est un gars très bien amul benn problème il mm-hmm. était toujours souriant. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. massa massa merci. yaayam ñu lay nuyu di la masaw di la jaal tuus ak naqar bi nga xam tiis ak naqar bi nga xam ne dal na tey ci seen kaw. waaw franchement Nabou tey moom waaye c'est c'est triste nouvelle quoi. donc nii la ñu dikkee mu nekk loo xamante ne bett nañ ñun ñëpp donc on ne s'y attendait mais bon dogalu yàlla la quoi te yàlla moom xas ba tudd rek. Mm-hmm. waaw dañ koy nangu daal ñu mm-hmm. koy ñaanal rek. Mm-hmm. waaw yàlla xale ko àjjana yi gën a kawe quoi. mu ngi noonu yow nga xam ne yaa a wax ci Momo. Momo c'est maanaam ci ci il est correct dafa yaru. irréprochable Momo ma gis ñu ne moom Momo am na lu mu def loo xamante ne dañ ko si corriger wala dara donc koo xamante ne il est très motivé tamit bëgg tournage yi bu yàggul rek ma doon envoyé message di ma laaj kañ la ñuy démarrer quoi parce que là actuellement dafa bëgg toj saison bi donc euh, mu nekk loo xamante ne c'est triste vraiment donc euh, Momo moom waaw ku baax dem na quoi xale bu yaru waaw xale bu déggal ay waajuram déggal ñëpp déggal ay magam respecté leen quoi mhm. franchement donc c'est une grosse perte franchement mu mel ni lii mooy deuxième tiis bu leen dal ci série Virginie gannaaw bi nga xam ne yaayu Djily bi mu génnee àdduna di suñu yaay ñun ñëpp tey moomoo moo daal di dem ban tristesse na xam naa ne yéen ñëpp seen xol naqari na mais yëg-yëg bi ngeen yëg tey lan la waaye man en fait bon man soo xoolee su ma xoolee xale yi en fait laay gën a triste mm-hmm. parce que je pense que loolu moo may jooyloo. dama gis mu meloon ak xale yi mu nekk loo xamante ne franchement c' est c' est c' est xale yi dama leen ñëw ñu fekk leen fii nii ils étaient tous abattus quoi. Mm-hmm. donc waaye euh, laa moom je pense que parce que dafa nekkoon xaytu ñëpp. Mm-hmm. déggoo woon ak ñëpp. mu nekk koo xamante ne day nemmeeku ñëpp tout le temps koo ci gis mën na la démb rek maa ngi déggante ak moom donc waaye euh, en fait c'est ça qui est triste je pense que loolu moo gën a metti feebar bi dafa yàggoon ci moom waaye pare ah donc moom moom boo comme il est très maladif donc nekkoon loo xamante ne bon et je me dis que bon même si sax euh, feebar ne veut pas dire mourir mais boo euh, lu yàlla dogal la parce que tey soo waxtaanee ak waa këram si ngay xam ne lii nii waaw lu yéeme la quoi hmm. franchement hmm. donc waaw tey nii nii nouvelle bu bette hmm. feebar deux jours comme ça il est parti je pense que lu triste la quoi mas ñu leen di boole di la masoo di la jaajëfal jërëjëf merci beaucoup